pàkk bii ko gën a loolu ci pàkk bi mhm. aha ca dëkk bi toll ni mu toll mhm. taalibe yi toll ni ñu toll mhm. màggal gi toll ni ñu toll gabon googee ba mu nekkee ma yumba jëloon na ñeenti bant samp ko def ko jàkka sëñ Moussa Ka nee fekkoon na Cheikh Bamba defoon fa jàkka fa penku quartier ga mu jublu màkka su su quartier gay liit bamba daal di nodd ñuy maaj mu kàbbar noonee far ko gedd mhm. capitaine ba ñëw ni bamba jàkk xewu fi bul nu xatal sa jullikaay bi xaju fi mhm. quartier ga wëq ñëw tasaare jàkka ja njool màkk ñëw fa am nga maxraja eh, yéen di sëy mhm. commandant ba mu yàq yàq yàq eh, eh, jàkkay sëñ Tuubaa joojee yéen sëy dafay nekk di xulóog moom ba timis mais bi sëñ bi ñëwee njaareem ñu tabax jumaa njaareem ji ba mu noppi ba yëlli say ñëw euh, euh, euh, ziyaare sëñ bi mhm. sëñ bi yebal ko ni ko demal xool juma joojee mhm. néegu bi yàlla boobu ba mu demee xool ko ba ñëw daf ko ni nu mu def ak ak ak sama néegu bi yàlla ba ñu yàqoon foofee ca ca ba mhm. jàkkaam joojee ñu toog lu mat siècle téeméeri ak juróom fukk sunu boroom montagne ma nga xamante ni fa la ñu ko marale woon ak garab doon ko fetal muy li Thierno doon wax léegi. taalibe Serigne Touba yee nekk Gabon du fekk nee na ñu tuubalu fa kenn. ñu tabax fa jumaa joo xamante ni def nañ ci un milliard de francs CFA. maa ànd ak Serigne Mamour Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada. en ñu dem ubbi ji jumaa ji. Serigne Abdoulaye bi mu fi nekkee. at yii daan jógee Gabon daf ko daan daaneel at yëpp am solo. waaye euh, barab ba tubaab yi tànnoon ni nañ ko fa yóbbu ngir taal ba ñaata million ñooy bàyyi koo Gabon tey di ñëw Touba kon ke wax loolu daa xamut sëriñ bi wala euh, fi dañuy wax ni ñay buy xàll babal doom jaa waaye taxut ma xool ma xool téere bi da nga ci da nga ci bind mhm. euh, da nga am lu bari loo ci dëxañ ci ay secret wala lépp lu tubaab bi mës a wax ci diggam ak Serigne Touba. Mhm. da ko ci da ko ci da nga ko ci xaatim maanaam téere bi. Mhm. juróom juróom-ñaari chapitre la. Mhm. chapitre bu njëkk bi mooy tukki bi kalaame yi rapport bi euh, euh, euh, conseil privé bi bato bi yóbbu sëñ bi fi mu jaar ba sëriñ bi yegg. la xew Gabon diggante sëñ bi ak tubaab bi ba ci document bi ñu mënoon wane léegi. ba sëriñ bi dellu siwaat Sénégal le novembre ba wàccaat ci. këram gi nga xamante ni bii rakkam ja loxob ndeyjooram ba mu yónni woon ndar ki ma doon wax ni le 17 safar di bisub ajjuma bisub borom Daaru Muute ndax keroog la tàggoog gouverneur Muute mu ni ko ndax boo demee sëñ bi dana génn mu ni ko waaw mu xëyee fa jël wàcci wàcc Louga jaar kër sëñ Omar ñaan nguñure ni ko damaa soxla fos woo xamante ni bii du tële mhm. mu ni ko fos wi ci waram bi day yafalu yetti at ngi ci waxuma la tële waaye tërëf du ko def mhm. bi tisbaar di jot la fekk Leclerc fa mu campé mu wax la mu waxanteek moom mu boole koog ma Abdoulou ak Ahmadou Ndiaye mu topp guddi gi ca fajar ga la egsi fekk sëriñ bi sëñ Fallou nettali na ko sëñ Abdoulaye nettali na ko fekk sëriñ bi waaj kon euh, euh, ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci euh, safar borom Daaru Musti jëf na ci jëf joo xamante ni jëf ju ñu war di fàttaliku la mhm. ñaareelu chapitre bi mooy nekkuk sëñ bi Daarul Manaan noonu bi doon bind naan sëñ bi dañ koo def bindub leetar di lay naan damaa wopp mënumaa ñëw dugg na fii génn fii mhm. la tubaab yi bind ci daarul manaan ak la fa yépp mhm. ba ni mu génne ba le 17 juin 1903 euh, ci la ko le gouverneur Merlin notifié ni ko dañ la yóbbu ci Cheikh Sidiya mhm. troisième chapitre bi mooy le séjour de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie la fa xew tubaab yi def ci moom quatrième bi mooy au mois de juin 1907 bi mu ñibbisee maanaam bi ñu ko indee résidence surveillée euh, Thièyène Jolof cinquième chapitre bi mhm. résidence obligatoire mhm. Buqaatul Mubaaraka di njaareem mhm. di euh, euh, chapitre bu am solo muy fukki at ak yi sëriñ bi dem yi def njaareem sixième chapitre bi mooy Cheikh Mamadul Moustapha ginnaaw sëriñ bi demande bi mu def ngir bàyyee bàyyee suuf si yoonu saxaar wi tàmbali jumaa yi Tuubaa indi sëriñ bi Tuubaa ak taxawaay ba ca a def ak li ci tubaab rapport ya septième chapitre bi nag mooy kii daa wax borom baraag bi di Cheikh Mamadou Fadal Mbacké màggal gi mu njëkk a màggalu Touba kañ la ko sëñ Fallu njëkk a woote euh, Pape Sidi màggalu Touba kañ la kañ kañ la ko sëñ Fallu njëkk a woote Touba 1962 <laughs> 62 dafa teel dafa yéex première édition màggalu Touba bi Serigne Fallilou Mbacké njëkk a woote c'était le 11 janvier. 1947. Mhm. mi ngi ci téere bi discours ba mu ca def benn journal bu ñu doon wax. 1947. le 11 janvier 1947 mooy màggalu Touba gi Serigne Fallou njëkk 1946 ma ngi ko màggali Touba Njëgëj ci arrondissement Darou Moussi muy mhm. le 11 euh, janvier. Mhm. la woote Touba màggal ko nga xam ne moo doon congrès ngir di waxtaanee. liggéeyu jumaa ji ko ñoroon lool ba taxoon ñaari oto ya mu amoon mu jaay benn oto ba jox leen ko ni def leen ko ci liggéeyu jumaa ji bi beneen oto ba ci des mu may ko sëñ tay mhm. xanaa ko amul ko oto doo tukki mhm. fii maa ngi gis benn journal bu bind article ci Serigne fallu mu ne journal de Paris du 16 mai 1950 Euh, 1950 mhm. mu ne Touba euh, un bel acte de générosité de Serigne Fallou Mbacké le deuxième calife de Serigne Touba, Serigne Fallilou Mbacké, vient d'accomplir un acte piètre, retentissant, renonçant aux euh, fréquents déplacements. mooy dootul tukki dootul génn Touba maanaam dootul tukki. à l'obligation euh, de sa mission. il a dû euh, vendre sa voiture et ordonna à ce que la somme soit mise sur au profit de la construction de la grande mosquée de Touba. jaay na oto bi jël ko ñiy gérer jumaa ñi leen def leen ko ci liggéey. ne leen def leen ko ci liggéey bi. jël beneen oto ba it joxe waat ko. sëñ Taïba. sëñ nekkoon na ko boole ci ñii liggéey comme ça liggéey bi gën a gaaw. Mhm. bu sëñ Modou Moustapha xàllee raay bi mu jugee Njaareem sëñ Fallou it def na ci def yu am solo. lii benn journal moo ko bind bu Paris. Dakar dama ne la. Euh, ay information yu ci li dama ne jumaa ji fii ci sëñ Fallou jaar. ba ci compte rendu ubbite jumaa ji le 7 juin cent 1963. Mhm. discours ba ci sëñ Fallou def lu gudd a gudd gudd ñaanal ñi nga xam ndax jumaa ji dafa am ñu bari ñu ci ñàkk bakkan seen bakkan ci liggéey bi. Mhm. lépp sëñ Fallou wax na ko lépp ngi ci maanaam téere bi moom ku ko ku ko xas am. Mhm. Eh, dootoo jóg naan damay dem di yow mi naan xamoo dara bu téere bi boo boo ko yëree <laughs> uh-huh. dootoo jóg di laaj kenn eh, mais malheureusement uh-huh. fukki téere ak juróom rek moo ci disponible woon ndax l'éditeur dafa am retard boo xamante ni bi moom doy na waar te suba la euh, euh, cérémonie de dédicace bi waaw te fukki fukki <laughs> defe naa fukki téere ak juróom moo fi des <laughs> cérémonie dédicace bi ku fa yéex du am ci quinze téere yi de moom koy moom xanaa <laughs> xanaa da ngay dupliquer waat da ngay bindu da ngay non da ngay defaraat dafa am retard mais léegi ñu bëgg ñëpp dañuy bindu macha allah ndax dana téere bi murid yi bëri war nañ ko gànnaar est-ce que Baye Mbaye du euh, bi bi muy changé c'est-à-dire à partir